asalaamaaleykum mbokk yi ñu suivre saa su nekk seen site internet bpactu.com ñëwaat nañu si seen yeneen i xibaaru actunet tey nag ñu ngi koy ubbee ci Barthélémy Dias mi nga xamante ni xëy nañ di ko fësal ci Sénégal muy wax que ni Barthélémy Dias ginnaaw ba ñu libéré ki nga xamante ni moo di sàll Sall moom de Barthélémy dafa jàpp ni grace boobu yëpp ay farce la mais loolu nag mënta tere bi Khalifa Sall bokk ci élection présidentielle 2024. ba tey Guy Marius Sagna di wax ci libération bi nga xamante ni moom la ñu defal xalifa sàll di dimanche bi nii passé moom Guy Marius Sagna mi nga xamal ni xalifa euh, Sall ginnaaw 37 prison yi am ci Sénégal yëpp Sénégal moo nekk prison bi nga xamante ni moom moo ci gën a dangereux li gën a metti nag bul yaakaar ni prison nga ko bàyyi mais fii nii nga koy fekkaat ci Sénégal ba tey affaire Khalifa Sall ginnaaw ba mu génnee ci prison bi dem kër yaareem directement moom da yaay gi xëy na jàkkaarloog presse bi di wax di nakarlu coono bi nga xamante ni doomam dajoon na ko fële na le euh, ci kaso bi tey yëg la ni nag Macky Sall tegoon na doom coono boo xamante ni ñoom duñ ko mës a di def nag naan incha allah rabbi moom gëm na ni doomam dina nekk président fii nii ci Sénégal. ñu jeexalee suñuy xibaar ci Eumeu Sène ex roi des arènes mi nga xamante ni Modou Lo moo ko fi jëlee boobu ba tey nag ñi ña ngi koy laajal Balla gay mu xëy di wax wax ju leer naa ñi di yëgle ni même avec 6 milliards de francs CFA moom dootul jàkkaaloo ki nga xamante ni moo di Balla gay di bëreeg moom nee waxam foofu la yem te kenn bu ko kenn waxati waxu bëreeg Balla Gaye mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci seen xibaaru Actu Net yi te di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah jaa ngeen jëf. ay appartement de classe appartement meublé yu mucc ayib fële ca Jàmmalay virage près de la plage wedeen prolongé jàkkaarloo ak géej gi wuy loolu yow séjour minimum ba trois jours dong la am nañ tam ay salon ak ay balcon privé ay coin à mage deux chambres ak coucher climatisées plus de salle de bain intérieur extérieur télévision écran plat plus de cent chaînes ay cuisine équipée yu mucc ay sax connexion yu fi gratuit possibilité de restauration bu am jom phone 864 09 50 77 864 09 50